lan ngay dénk sa jigéen ñi waaw di sargal jigéen yëpp di ci njëkkee sama yaay ah, di ko di ko sargal bu baax a baax a baax di ko wax ah, ah, bonne fête des femmes <laughs> maman di sargal bépp jigéen jigéenu Sénégal di di leen wax ne bu ñu fàtte ni Sénégal fii la fii lañ amoon Yacine Mbuubu fii lañ amoon Ndate Yàlla fii lañ amoon Aline Sitoé Diatta fii lañ amoon jigéeni ndeer yëpp yi fi jot a jaar am fi soxna maam Jaara Buso am fi maam Faa Wàdd Wele xeetu jigéen ñooñu noonu tey ñuy gis tey bu boo ma boo ma waxee si 8 mars dinaa kontaan tey Euh, di profito di sargal yenn jigéen yi nga xam ni dama jël man en tant que femme euh, teg sama bët ci ñoom ku ci mel ni euh, madame fàttu Sow Sarr Euh, <laughs> muy fem boo xam ne mu koy suivre tout le temps ku ci mel ni Marema Thiam ku ci mel ni euh, bëri nañ bëri nañ ku ci mel ni femme activiste yi euh, maa ngi leen di sargal am na tamit ci réseaux sociaux yi ay dames yi nga xam ne kenn ki sama magu bopp la sama xarit la maa ngi koy sargal mu ngi tudd Nafisatu Diallo am na ci ku tudd Fatou Bintou Rasoul moom it politicienne la Euh, leen wax ne bu ma gisee jigéen yi nga xam ne tey dañu intéressé wu sur la chose politique c'est-à-dire la gestion de notre cité euh, damay gën a confiante que ni euh, Sénégal dina gën a mën a dem ndax jigéen baax na góor baax na ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo mo aussi mooy takk sër di di ñaax aussi sama rakk yu jigéen ñi euh, que ñu gën a intéressé wu ci la gestion de la chose politique de la gestion de la cité surtout parce que ñun ñëpp tey euh, Sénégal euh, bu avancé ñun la avancé bu delloo ginnaaw ñun la delloo ginnaaw donc mën nga bañ a bokk parti politique mën nga bañ a bokk fenn mais nga nga nga intéressé wu ci liy xew ci réew mi nga intéressé wu ci liy xew ci réew mi ndax ndaxte kat euh, ñoo bokk Sénégal noonu laa ko mën a waxee donc may sargal bépp jigéen bu nekk Sénégal nekk femme battante femme courage di leen féliciter di leen ñaanal une très bonne euh, journée de la femme